ñu nar kaa topp ak yéen programme bi fii ba guddi incha allah bu ko defee damay bàyyi soxna Asu mu nuyoo soxna Asu ziar naa la. waaw maa ngi lay ziare si. waaw sëñ bi ñu ngi lay si jàmm bu baax. yaa ngi def marche bi ñëw ba Masalikul. Euh, ban jàngat nga am ci yoon bi nga xamante ne jóge nañ ko ci camp bi ñoo ko masaale. ginnaaw loolu bu loolu weesoo ñu muslu ci saytaane comme ni ko sëñ Touba doon defee rek yaa sa mina la indi jéewale te jeewal ak gabon. ginnaaw loolu ñuy santaat Serigne Touba di sant sëñ Mountakha di sant mbokk taalu yi di sant sëñ Cheikh nga xam ne mooy kilifaat Baye Fall waaw maanaam euh, guddi def na fa ñaari guddi yu ndakaaru samedi ajjuma samedi moo waral moo waral guddi gi tey guddi gi saa ci yeggee rek day wane ne daal dañuy delloowaat suñu suñu xol ci sëñ Tuubaa gën màggal guddi gi waaw maanaam daal saa ci rek yeggee rek aalu rek dañ ciy bàyyi xel xam ne guddi ndakaaru yi nga xam ne maanaam suñ borom nattu woon na ko maanaam ci guddi googu lëndëm lol kat ba mu moom mu jànkoonte fa ak lu ne ba e, sunu mam mam jaara fekk ko fa ak jibril doli koy ñaax mo waral guddi gii saa ci yegge nak ñun bok talibi dañ ci delo xan gëna sante serigne touba rek di gëna magal màggal guddi gi ba ku ñew ñu yaatal la ndax serigne touba dana xam jaamal wara bàyyi du chrétien ba du ñep ñep la sëñ Tuubaa wax képp rek jaamal wara yàlla wàcc ci daaray duniyaa ngir jaam ñee tax dimbali jaam ñi rek dara tax koon a jóg dimbali jaam ñi rek ku moom foofu foofu moom di nga delloo si waat xel sa xel ci guddi ndakaaru xam ne jànkoonte fan jànkoonte muñ ak ngorom ga waaw loolu daal laa ci amoon lu ma ci waaw kay ma rek ma laaj la ci wàllum organisation yi nan lay demee noo leen ko tëddalee comme wàllum togg yi yooyu noonu waaw maanaam ñun moom loolu moom Ah, euh, ndax dafa am ñu ñoo xamante ñoo yor programme bi maanaam ñoom ñoo ci man di wax ak yooyu waaye maanaam comme man li ma ci mën a wax daal mooy guddi gi daal moom niñ koy màggaleeg yooyu moom loolu daal xam naa ne mën naa fii moom wax dëgg si yàlla xéewal yi doy na moom waaw xéewal yi moom doy na waaw léegi ñu lay ziar ñu ngi lay yow ci ban domaine nga nekk hmm? ban domaine nga nekk comme ci lan ngay yëngu daal ci màggalu ñaari guddi Ndakaaru ban façon nga nekk maa ngi ci bagage yi maa ngi jàppale gars yi ci liggéey bi maanaam ku fi ñëw maanaam di warmaal béréb bi xam nga di di dool di dooli mbokki taalibe yi daal di leen xamal ne leen bërëb bi béréb bu sell la mook Touba ñoo yem maanaam loo fi li fi borom Touba ñaan rek dana maanaam ñaan na ci Masaalikul Jinaan yi lépp loo xamante ñaan na ko suñu borom lu fi waay ñaan mu nangu loolu war mal googu da cee bokk da ngay gis fi sax des fois ay nit ñëw ci jumaa ji di sol ay dàll te loolu bokkul ci war maal ndax ni ñu war maale jumaa yi Touba noonu lañ war maal war a war maale jumaa yi Masaalikul Jinaan ndax Masaalikul Jinaan bi nek ci digg Ndakaaru boo gisee suñ borom def ko fi bëgg dimbali jaam ñi moo waaw loolu dong moo jumaa ji ñëpp ko bok kep kuy jullit rek ci nga bokk waaw nit ñi nañ xam loolu waaw wasalaam loolu ok jërëjëf kàddu yi am na solo trop ñu lay jaajëfal bu baax ma tëjaat bu ko defee macha allah kàddu yi am na solo loolu ah, li mu jot a wax yaakaar naa ku ko dégg di nga si jàngat bu baax a baax bu ko defee dañuy dem xoolaat keneen moom tamit mu wax ñu tey bés bi nan la koy dundee incha allah. si ñu ngi lay waaleykum salaam waaw ñoo ngi ni ci marché bi eh, jógee Kamba jëm Masaalikul tey noo dundee bis bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi sant yàlla julli ci Yonent bi xanaa dundee ko kontaante ak mbégte ak fierté. waaw di ñaan yàlla sëñ Mountakha Mbacké suñu jàmbaat yàlla may ko fanu gudd ak wér gi yaram ba yàlla may ko mu fekkee lépp lu mu naalal liggéeyal ko ku tedd ki suñu borom may ko ko itam ñuy delloo gërëm itam suñu jëwriñ bàyyi ñu ko jeng ak soxna Ndey Koodu Jeng moom itam soxna yi ñu ngi koy gërëm di dool di leen ñaanal yàlla tey boo gisee ñu àndandoo suñu papa yi ak sunu yaay ak sunu rakk yi ñëpp nga xamante ni muy mag muy ndaw ñëpp a ngi mas kenn yëgul benn coona jéeguñu dara daal ñun daal ànd ak tawféex ak sëñ bi yow tey ji ba ban loo yëg tey daal tey loo yëg walaay xanaa kontaan rek kontaan ak mbégte mu xamante ne si amul fen am na commencement waaye amul yemukaay li ñuy wax rek ku tedd ki moom boo ko yëg doo ko yëg boo soonee doo ko yëg ndax mooy ku tedd ki waaw walaay ok jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax soxna si kàddu yi am na solo trop macha allah jërëjëf ñu jaajëfal laa leen bu baax a wax ba tey ñoo ngi jawale fii nga xam ne moo di Masalikul Jinaan soxna Ndey asu dama koy bàyyi moo ànd ak jigéen ñi am na benn yaay booy bu mu am bu ko defee moom dana ko mën a dékk micro ma waxtaan ak moom soxna a su bisimilah. waaw sëñ Ba ñu ngi lay jaajëfal waaw soxna si ñu ngi lay ziyaare di la jox sa waaye te ñoo ngi fii ci marché bi jugee camp ba jëm Masalikul Jinaan tey yow ban yëg-yëg am. kontaan rek billaay kontaan rek ndax bi moom buñ ko defee moom dëgg fa yàlla mënu wax daal macha allah kontaan nañ trop sëñ Touba rek sëñ Touba rek. ok sëñ Touba rek ñu commencé sëñ Touba yem ci sëñ Touba yem sëñ Touba. ok jërëjëf soxna si jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal ñëw tey jii ci marché bi tey ban yëg-yëg nga am tey ji ci marché xanaa mu kawe lool ci sant Serigne tubaa ak ku ma àndal ak ku ma ak ku ma yàgg di liggéeyal Serigne bi di santaat Serigne Mountakha Ahmad Serigne Bassirou yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal Serigne Modou Mbacké Ndir nga xam ne mooy suñu njiit may jiitee Touba Bambey man soxna Awa Fall laa tudd Baye Fallou soxna bu Bousso maa ngi sant yàlla jul ci yonent bi sant Serigne Sowa sant Cheikh Saliou Mbacké ren lañ jógee xel koom bi ñuy ñëw yoon ni dafa xat waaye teewul macha allah mbooloo la ñu indi ñoo ngi sant waa télévision bi di sant mbooloo mi di sant waa kër Serigne Touba di sant Baye faali mbir mi kawe na lool. tey boo gisee tey ji Baye Fall yaa ngi jàng alxuraan jaa ngi jóg xasaayit yaa ngi jooli ndaw ak mag ñëpp àndandoo tey ji jëmali ci Jinaan tey noo noo ko noo dundee daal ak loo yëg daal tey ci sa. xanaa bëgg lool bëgg bëgg bëgg kontaan ndax mi ngi mel nii ba ñuy ubbi bés bi nga xam ne keroog danoo ñu indi ay xéewal mënuñoo am sax fu mu ba joxe ko. tey jii macha allah noonu la demewaat lépp sëriñ Touba la. sëñ Touba ak moom rek la nit ñi gëm boo leen laaj ñu jox la boo wootee ñu wuy si la nii rek la mën a demee. macha allah يشاءون إلى أمد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين jërëjëf mbokk yi ñu jaajëfalaat leen bu baax a baax Touba Pro ak Sekhawgui TV ñu ziar leen bu baax a baax Baye Cheikh Samb miin nañ ko bu baax a baax ci liggéey bi ci wàllum audiovisuel ci wàllum communication ci Touba ak gox yu wuute lool organes yu bëree bëri. miin nañ ko bu baax a baax ma ànd ak sama sama xarit euh, soxna Ndeye Assou soxna Ndeye maa ngi lay nuyuwaat. waat Baye maa fay. moom mii suñu papa la joo xam ne ci liggéey bi. miin nañ ko ci bu baax a baax. xam naa ni dañ koy dégg suñu micro rek waxtaan ak moom ay ay ci tënk Baye Cheikh maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf euh, sëñ maa ngi lay nuyu. soxna Astou du soxna Astou la waa soxna Astou ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi ak euh, taxawaay bi mu mel ni bésu tey bi mhm. dañuy delluwaat ci gannaaw. 1895 mhm. euh, maanaam 22 septembre 21 22 septembre. 1895 dëppoo ak euh, Rabiul Awal. 1313. Mhm. Mhm. dañoo indi woon Sëñ Tuubaa fii fii euh, Ndakaaru. indi boobu ñu ko fi indi woon nag. am na jëflante bu ñu jëflante woon ak moom jëflante bu bu bu bu bu xaw a bu xaw a ñagas. boo xamee ne nii sëriñ bi day wax ne. su koy fàttaliku day bëgg a jël. ngànnaay jiyaara tubaab yi ndax da koy daf ko bind ne iza zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa subuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin zabba an il maahi mu ne saa bu xalaatee rek ñetti guddi yooyu nga xam ne ni amoo defoon na ko fii fi Ndakaaru xelam day dem ci jiyaar loolu nag buñ demee ba tey jii bépp bés bépp gàllankoor ba mu am bépp gàllankoor ba mu am mu far doon ak cant ci moom wala bésu bépp bésub naqar mu def ko bésub cant loolu moom moo firndeel bés bii nga xam ne ni tey jii murit yi Ndakaaru amal nañu ko nga xam ne ni ñu ngi ko waroon a def ci vingt 22 21 de waaye jamono boobu am lu mu jegeel euh, mu jegeel màggal gi te daanaka loolu day looloo tax ñu daal di koy indi ci ci bés bi di premier ak 2 décembre loolu nag dañ ciy jàngete ne Sëñ Tuubaa liggéey bi mu doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf ci am loo xam ne ni gidd giddam moo nekkoon yonent bi yonent bi moo nekk gidd bi fu lu jot mhm. mu jotal ko mhm. fu mu war bu waree dem mu ne ko demal su waree taxaw mu ne ko taxawalal kooku de comme xanaa moom lépp dina tege ci yoon looloo waral nag tey ndam lii mu am ko nag waaw waaw waaw shahidul akbar uh-huh. muy eh, li ñu wax eh, jihaar ju mag ji uh-huh. al jihaadul akbar uh-huh. mooy jihaar ji nga xam ne ni jihaar na ko ak boole la ak say noon mhm. ñu yóbbu la ci barab bu la kenn xamewul waaw mu dund fa mhm. la mu fa dund mhm. ci juróom-ñetti at dellu siwaat ak ndam lii mu indi te taxul mu teggi tànkam wallaay ñun ak jéego yi ñu dem yóbbu gànnaar jële fa yóbbu ceyeen indiwaat ba indi ko njaareem wallaay mu liggéey fi liggéey bii mu fi def ba mbooloo mii ngay gis nii li nga loo gis ci ñoom sëñ Tuubaa ko def ci ñoom. ndeysaan wallaay. lu baax loo gis ci ñoom rek. Hmm. sëriñ bee ko def ci ñoom sax surtout mbooloo mi sax détermination bi ma gis ci ñenn mag ñi nga xam ne xaw nañu âgé ak tout tànk yi ba ñu commencé ba tey ñoo ngi ànd ak ñun liggéey bi te mag bu toll foofu ak heure bi naaj bi xaw na tàng. ak tout tànk yi bu toll foofu tamit heure bi naaj bi xaw na tàng mais mu mel ni amuñu benn jafe-jafe ci loolu. xam nga jàmm. Hmm. nekkul ne dem boo ne la joxoon pale ba. Hmm. nit da gis ku taw ku ne ci biir palais te du taxul mu am jàmm. waaw nga gis ku ne ci néegu ñax te kenn ëpp ko jàmm. nga xam ni moom jàmm doonul lu lix. déedéet lu lix ak yu mel noonu déedéet naaj wi ngay gis nit ñi mbégte lañ koy dundee. waaw loolu de wér na moom. loolu mooy defarub sëriñ bi. ndeysaan wallaay. maanaam eh, situation ak matière. Mm-hmm. ak jumtukaay. Mm-hmm. du moo lay yóbbu ci mbégte. wallaay wallaay waaye dund yàlla moo lay yóbbu ci mbégte. ndeysaan wallaay. looloo tax sëñ Muntaxa ne sëñ Tuubaa mooy jàmm. waaw ndax tey jii lii ñu ci moment bii réew mi toll. Mhm. gisuñu kenn ku ñu ko nangul. déedéet déedéet ñu ñëw ba biir buntu palais. Mhm. jaar euh, la daan teg. waaw jël mbedd moomu ak dëkk bi ni mu xateeg. situation dëkk bi ak situation actuelle. ak ak euh, tension politique bi fu mu toll. waaw. takk der yi escorté murit yi ñu mhm. taxaw di yëkkati turu yàlla xasaayit alquran loolu loolu moo lay wane la Sëñ Tuubaa mooy jàmm te nii nu ko nangulee seen fii ci biir réew mi uh-huh. noonu lañ koy nangulee fépp ci àdduna bi Sëriñ Tuubaa kon Sëñ Tuubaa mooy jàmm maa ngi jégalu bu baax a baax jël naa sa temps maa ngi koy tub bu wér a wér di ko euh, di ko jégalu Baye Cheikh Samb miin nañ ko bu baax a baax ci liggéey bi euh, dégg nga kàddu yi mu yëkkati effectivement euh, instant bi ak fi politique bi toll bariwul ñu ñuy nangul mars bu toll nii mbooloo mu toll nii ñuy dox départ fi nga xam ne si moo di camp Dial Diop jëmali Masalikul Jinaan ñu nangul leen ko boole ko autorisé ko ñu mën a dox diggante boobu ba tey muy kàddu yu am solo soxna Ndeye Astou ban jàngat nga ciy def. waaw jàngat man jàngate naa ci lu bëree bëree bëri. Mhm. ndax man. macha allah daal fi ne nii sama xol daa fees. Mhm. am na lu bëri loo xamante ni mënu ma koo wax. Mhm. mbégte laay yëg. ndax mhm. xam naa ne moom tamit. li ñuy yëg rek moom lay yëg. wallaay lépp Serigne Touba la. ndeysaan wallaay loo gis rek Serigne Touba la. macha allah Serigne moo yéeme daal. wallaay booy wax ci moom. waaw ci Serigne Touba rek ngay wax. nga a na ma. wallaay wallaay loolu rek nga mën a wax. macha def lu kenn deful. wallaay moo taxit uh-huh. dina mu am fii lu kenn amul ndax tey ji mbooloo mi nga gis uh-huh. tey ba fa sa bët yem uh-huh. bañ na ba li nga xam interview bi ñu bëgg sax ñu ko am normal ndax mbooloo mu bëri ak takku ku mu takku wallaay wallaay waaye sant sëñ Tuubaa rek sant sëñ Tuubaa ndax li lépp ndamati lépp ndam la daal amati nañ ndam amati nañ ndam soxna Ndeye Astou jërëjëf actuellement nag ñoo ngi jawale fi nga xam ne moo di Masalikul Jinaan ci marché bi nga xam ne ñoo ngi ci actuellement ndaw ñu ñoo ngi ci waaye tam mbooloo mu takku lool Euh, fa yéene rek dox jawali foo nga xam ne moo di Masalikul Jinaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam ñoo yor euh, alxuraanul karim kaamil bi commencé nañ ko ba ñu déparé am nañ ay ndaw yoo xam ne ku jàng benn xaaj sa moroom yéeg jàng benn xaaj ña topp ca ñoom ñoo yor xasida ak jasbul xulóob ña topp ñoo yor muwaahibu ña ca topp ñoo yor am amda Euh, ñi toppaat ci ñoom mooy ñi nga xam ne mooy kuréelu Baye Fall yi nga xam ne ñoo ngi ci sikrulla euh, ni ma ko waxee sànq bu fekkee da nga toll ci alxuraan ji da ngay jàpp ni alxuraan ji moom saa mu mënoo boo avancé ba toll ci jësbu bi mhm. maanaam bu bi itam mel melokaan woo xam ni mhm. macha allah nga toll ci muwaahi bi bi noonu mu xadimaat bi noonu sikrullaah mhm. bi tamit boo ci tollee noonu lay mel mu mel ni bisu tey bi daal bis bu bis bu ala la ni ko gars yi di waxee bis bu ala la waaw bis bi daal ala dawme comme ni nga ko waxee léegi rek soo ñëwee ba yem ci jànkatu arxuraan mhm. sa yaram bi day daw mhm. nga gis ñuy durus mhm. sa yaram di daw nga xool ñi jekkati arxur xasiday Sëriñ Tuubaa yi sa yaram day daw xasida boo toll lool ba ngay da yaakaar ne xasida bii mooy lépp nga demati ca bee uh-huh. nga ne lii kon Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa moom daal kenn xamul Sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mooy lépp sëñ Tuubaa mooy Sénégal sëñ Tuubaa mooy lépp te li gën a xoromu mooy mhm. ba ñu déparé ba tey am na ay mbokk yoo xam ne ñoo ngi ak seen i mhm. moo xam luy sase wala lépp loo xam ne mbokk yi ñoo ko jëfandikoo wàcc mhm. mbokk yi bàyyi wuñ ko fa ñoom it ñoo ngi koy nettoyé nga xam ne ñun ba tey fuñ jaar ñun duñ bàyyi benn trace amul lu ñuy bàyyi loo xam ne euh, dañ naan ñoo ko taqal waa sant yàlla rek ndax loolu lépp nañ ciy sant yàlla suñu borom ndax sëñ Tuubaa fépp fu mu jaar ba jàll leer ga ak yaay faal yi uh-huh. kenn ku nekk ba ci xale yu ndaw yi benn mm. ndox boo xamante ni sànni nañ ko munoo ne fii mm. waa Masali ñoo fi jaaroon ñoo ko taqal wala waa kii bi moo fi ñu mu tuddati ma marché bi ñoo fi jaaroon ñoo ko taqal dañoo setal ba setal loo xamante ni defuñu ko fa woon waaw ñu ngi sant man nag maa ngi sama yaram dafa daw ndax dañoo desanteeg sëñ suñu jëwriñ Juga euh, sëñ jëwriñu liggéey bi waaw macha allah gis nga ni ñun ñun ndaw ñi sax mënatuñoo yëg coona ndax boo gestoo yem ci moom sa yaram bi day daw mi ngi yor kaamit bi téye di jàng mhm. di dox di dem te mhm. yëgul dara defe naa fii bu ñu doon dox kon fi frontière Gambie sax mën na ko ànd ak ñun ndax suñ tubaa rek lay dund suñ tubaa rek lay yëg ñu koy jaajëfal yak ñaan yàlla suñu borom mhm. yàlla na yàlla guddal fanam amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin soxna Ndeye uh, ci kanam tuuti rek boo ko defee ñu dellusiwaat résumé waat actuellement fi ñu toll ak itam mbokki taalibe ni ñu dundee bés bi nañu xam ne naaj bi moo ngi gën a tàng waaye téerewul ba tey mbokk yi euh, amuñu benn jafe-jafe ci dara ci loo xam si ni mën na leen gàllankoor ci ñu jawale foofee nga xam si ni moo di Masalikul Jinaan léegi ci kanam incha allahu taala Touba Pro Sekhawgui TV ñu dellu siwaat résumé leen euh, fi nga xam ni foofu lañ toll